loolu fan yëpp maa ngi woon ci ça maa ngi doog a le dossier de Ousmane Sonko démp laa ko boucler léegi nag sincèrement di wax ci sama akulaay taalaa Ousmane Sonko yàlla waxuma sénégalais de. Ousmane Sonko yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak bépp mboolem euh, malaaka bépp mboolem euh, euh, yonent ci barki suuf si ak asamaan si di wax rek te yàlla tax bañ ci ragal dara bañ ci dara sama temps lool ci Ousmane Sonko la ca baax ma wax la ca bon ma wax sénégalais yi c'est eux de juger dugg naa ci néegu Ousmane Sonko dugg naa ci suuf rondalu Ousmane Sonko duggu naa ci lalam ba yëkkati naa ko dugg naa ci almoire ya dugg naa maanaam wër naa ko fépp ci aaba ba waaye ñi nga xam ni laay yónni di yabal ñuy dem di indi ah ñëpp seede nañ ni usmaan Sonko du sàcc ñëpp seede nañ ni Ousmane Sonko du triyande ñëpp seede nañ ni usmaan Sonko yorulul askan wi fukki dërëm. ñëpp seere nañ ni Ousmane Sonko dans le domaine de la gestion sociétale nit bu jub la loolu document yépp loolu la firnde quinze ans impôt et domaine musu fa sàcc musu fa détourné musu fa rawale fifteen macha allah ñu dugg nag ci côté bi nga xam ni moom mooy le côté humain de la personne le côté mœurs de la personne le côté doomu aadama de la personne sincèrement li ma fa gis neexuma li ma fa gis am naa fa déception li ma fa gis bu ma la waxee ni nalaw naa démb barki alxuraan bës ba suñu na yàllay tey nii moo tax ma sol samay lunette sama bët yaa ngi xonk coy vraiment lañ ma tagal ci côté mërs neexuma de te damay wax rek te yàlla tax ba ñëpp soxlaa lumière maa daw indil leen document wu Ousmane Sonko ne violewul te ba léegi violé wul ba léegi violé wul de Adji Sarr Ousmane Sonko violé wu ko mais barke alxuraan lañ ma tagal ci samay loxo ma gis ko billahi démb dama doon dama naroon dee dama doon dee man dama doon xaru da ngeen doon dégg ni xaru naa mais dama ne balaa maa xaru ma def sama testament ne leen ah vraiment j'ai été superbement déçu très très très déçu par li nga xam ni gis naa ko ñu indil ma ko ci ay mbiru Ousmane Sonko ci ojo usmaan Sonko di wax may dégg ci vidéo usmaan Sonko di jëf may dégg may gis may gis wax déglu leen bu baax nag yàlla rek moo tax may wax te lépp dinaa ko teg damaa yàgg teg de bu kenn Ousmane Sonko laay waxal bu kenn waxuma ak yéen de bu kenn jéem ne. waxul dëgg bu kenn jëm ne day fen te ngay dimbale Ousmane Sonko Ousmane Sonko laay waxal tey balaa ñoo yegg foofu te barke alxuraan buñ fa yeggee billahi wallahi wa taalahi adduna dina tukki nopp dina dallu te doomu aadama bu gis loolu dinga daw lu yàlla teg ci samay loxo ba mu desee dem au front dem naa au front indil leen lépp ne leen complot am na waaye am na fu ñu jaarale seen complot foofu mooy point faible Ousmane Sonko indil nañ ma déglu leen de comme nu ma leen ko waxoon dama leen waxoon histoire bi am na audio ay génn ma ne leen am na enquête interne enquête interne génn ma ne leen lépp maa leen ko waxoon de lépp ma ne am na ku ñu naan rijaal rijaal génn donc nu ma waxee woon laa leen di waxaat ne dossier buñ ñu ma indil ci Ousmane Sonko am nay ojo ojo am nay vidéo am nay photo déggu leen de ñetti yi am nay ojo Ousmane Sonko am nay vidéo Ousmane Sonko am nay photo Ousmane Sonko am nay ojo Ousmane Sonko léegi nag du ma ñëw sànni ko fii di toroxal doomu aadama walla di comme nu koy defee ñeneen ñi am na lu ma ko mën a may ne ko Ousmane mu génn wax ak doomu aadama yi ci li mu doon réellement parce que kuy am déception man maa njëkk a am déception déggu leen man ma ne nalawuma démb barke alxuraan nalawuma sama bëri dafa suulu démb dama sonn dama dund tristesse boo xam ni dama yeewu guddi jàpp ba set julli ba suñ jonn yàlla de maa ngi wax yéen nii sama fit bi mi ngi rëf-rëf yi neexut maa ngi lox sama xol neexut barke alxuraan sama xol neexut sama xol neexut laa ilaha illa allah ange billahi mina cheytan rajim ange billahi mina cheytan rajim ange billahi mina cheytan rajim ma wax damay wax rek te yàlla tax Ousmane Sonko lay woo comme Sénégal dafa am ay affaire mërs dañoo gëm ay affaire mërs dañoo gëm ay affaire sexualité dañoo gëm ay affaire tëddee na kii audio vidéo télé et cetera et cetera loolu day xaw a taché wala tacheté liggéey doomu aadama bi bu doon tey Amérique la ñu ne kii tëddee na kii amul problème wala kii laal na kii wala kii am na audio amul problème mais Sénégal yooyu dafa compté loolu nag te la mu defalul ñeneen ñi dama ko defal Ousmane Sonko dama ko defal dinaa ko may pour mu exprimer wu dinaa ko may pour mu exprimer wu bu ko deful comme nu ma ko yàgg defee dinaa leen indil opération rëbb dëmm Ousmane Sonko benn par benn di leen génnal ne comme nu ma koy defee Ousmane xam nga kii comme nu ma koy defee ñëpp man bàyyi ba kenn de Ousmane xam nga kii lii ak lii ak lii génne leen preuve yi tegal leen audio yi tegal leen ngeen gis Ousmane gis nga kii génneel leen lépp teg na ma koy defee ñëpp man noonu rek laa koy defee background check enquête de moralité bu Ousmane Sonko te nee naa leen bu metti bu bu ab déception day am maa war a njëkk am déception ko yéen ndax man sama dund laa ci bàyyi ndax man sama vie laa ci bàyyi ndax man sama gis samay parent laa ci bàyyi ndax man dañoo taal sax sama kër famille ndax man donc li ma ci dund yéen ñiy toog dund leen ko ci li ma ci daj yéen kenn ci yéen daju ko ci li ma ciy souffrir yéen kenn souffriroo ko ci donc Ousmane sonk en tant que leader laay woo parce que duma seetaan nooni di génne loolu xaw xam yor nañ ko xaw ma yoruñu ko di génne loolu fekk man xam naa ko di génne loolu di toroxal Ousmane di ko yóbbu foo xam ni di ko dëri fekk man xam naa ko fekk man jot naa ci fekk man yàlla teg na ko ci samay loxo xàq bil xàq dëgg rek te yàlla tax le linge sale se lave en tout cas buñ tollee ci génne bu ma ko génnee déglu leen de buñ tollee ci génne barki laa ilaha illa allah barki alquranul karimul kitaab yi bu ma ko génnee dëkk bi dina tàkk dëkk bi day tàkk de xaw ma nag ba xam noonu jot nag mais dëkk bi dina tàkk de te fii ak semaine prochaine bu ci Ousmane yeyul yàbbiwu ci man du ma fen sénégalais de du ma fen sénégalais de parce que joxuñu ma lekk joxuñu ma naan damay xeex sama xeex laa ne sama xeex moo fi jiitu usmaan njëkk fi Ousmane moo fi jiitu Ousmane njëkk fi Ousmane te moo fi mujj Ousmane usmaan day dem bàyyi ma fi maa ko fi jiitu te bu day dem bàyyi ma fi en tout cas li ma leen di xamal mooy ngeen jàpp ko dinañ génne lépp incha allah dinañ publier photo di gisal seen bopp <laughs> bu dee montage la wala original la dinañ publier ñun photo bu montage la wala original la dinañ publier discussion whatsapp bu dee montage la ojo wala original la dinañ publier vidéo bu dee montage la wala original la dinañ publier ojo Ousmane Sonko bu dee montage la wala original la comme ni ñu koy defee opération rëbb dëmm ci ñëpp background check ci ñëpp incha allah dinañ ñëwaat très prochainement continuer élaborer en attendant je donne la possibilité et l'opportunité de Ousmane Sonko de s'exprimer incha allah bu ko deful na may jaarele politiciens yi benn par benn ci Macky sàll ba ci suuf noonu laa koy jaarale ak Ousmane Sonko ci début ba fin yàlla nag moo ma nattoo loolu bu ma nee bëri di yëkkati dara dina am ñu jóg ne day fenn seen intérêt la loolu du ma teree noppi waaye bu ma tegee firnde yi preuve yi noppi loolu nag yàlla moo ma ko bindee day mel ni Muhammad sallallahu alayhi wa jaar-jaaram yàlla baaxee ma ko mooy bu muhammad di wax sallallahu alayhi wa dañ ko weddi woon giribanem ñu dem ba ci biir ñépp nangul ko ma jël l'histoire de aji saar di wax wax lu bëri wax ne am na audio am na enquête am na tel am na tel nii la Ousmane violé wu ko lépp gars yi dañ maa saaga woon audio yi génn ak ñeneen ñi doon def live ñëpp ñëwaat ci Mollah ne Mollah wax nga dëgg donc lii miis naa ko ci sénégalais yi di waxte yàlla tax am ñenn ñu taxaw ne waxul dëgg tey fen waaye day bu preuve ñëwee nag ku nekk jàpp sa gémmiñ balaa ñoo yegg foofu nag waxuma kenn Ousmane laay waxal man l'activiste rappeur militantiste combattant valeureux de la nation sénégalaise may wax aw ma parti pris aw ma fu ma far dëgg rek lay wër ak kër gu mu mun a nekk dinaa ko ko nangul dinaa ko ko nangul donc euh, yaakaar naa ni loolu rek moo newoon opération bu dëmm bi annoncé Ousmane que yor naa sa dossier yi yor naa lépp vidéo photo audio message écrit lépp waxuma ay vidéo kese de gars yi dañuy wax naan parti bële ñoom Macky ñoom yor nañ benn vidéo ñi naan montage nanga man xawma lu ñu yor parce que lijjantiwuma leen dégluwuma leen it faruma ak man na ma ko yàgg a defee di dugg di loqati noonu laa loqatee ba yor lépp nag incha allah donc euh, maa leen